loolu lan la. waaw Assane moom sama xarit la suma frère la. waaw ma bokk Baol production nag quoi man bokk Baol production bokk Njaay production bokk Jéy production bokk ci structure yëpp lu tax dama euh, dama gérer benn école de lutte bu ñuy wax école de lutte Mor Fadam euh, promoteurs yi nekk sama ay partenaires bu dul promoteur école amul raison d'être parce que promoteur ñoo tëgg ba keroog nag ñuy am beneen structure buy tëgg mais pour l'instant Sénégal fii làmb promoteurs yi ñoom ñoo ko yor benn contexte la woon boo xam ni euh, CNG laa nekkoon peut-être bon euh, wax tamit des fois da nga wax mais nit ñi duñu la dégg quoi mais man man maay dernière personne buy boycotter ay promoteur wala may saboter promoteur parce que bu desoon ci diggante école de lutte Mor Fadam ak promoteurs yi bu ñuy bëree gratuitement sax ñu bëri gratuitement pour duñ doon làmp parce que structure ya ma la tuddal ñoom ñëpp dañuy suñuy partenaire lañ dañuy ñëw di tëggal suñu ay booy yaa ngi dégg wax bi ma ci daj ay ma ci liggéey liggéey bu am solo ñoom it ñu liggéey liggéey bu am solo mais man keroog bi may wax CNG laa doon waxal waxuma ak Assane Ndiaye moom moom comprendre ma xam ma moom tey bu demee ba ubbi groupe WhatsApp mu dugal ma ci biir ma ci participer ah di joxe sama xalaat ci ay montage am kon xëy na peut-être bon euh, mën naa ni pression contexte bi ñu dundee la ak yu demee noonu xëy na moo tax sax mu defee noonu mais moom sax xam naa ni. bon bu ma wowoon sax loolu lépp dañ koy régler ci ci ay ci maanaam ci ci coup de téléphone mënoon nañ ko régler mais lu waroon am la am na. mais yow fan nga doon waxee. nan nga doon waxee non damaa man damay wax di parce boobu ba léegi booba coow li dafa bëri. yàgg te dégguma kenn ku waxal yu ndaw yi. yaa ngi dégg wax bi en tant que président ma yàgg dajanteeg mbëri ñu ñu ñuy kaas lu jiitu loolu damay dajanteeg yenn booy yu bëri ñu naan ma président man buñ ma fayaatul ni man leen non da ngeen di ji. xam nga mais contexte bi keroog wax ak waat CNG wax ak ministre des pour ñu bàyyi xel mbër yu ndaw yi ku mel ne Eumeu Sène Junior ba mu jëlee avance léegi ñaata ñaata temps la xaalis boobu jeex na bu yàgg te dafa yor famille nekk nekk nekk nekk nekk mbër ku mel ne soq ak gàmmu gay ainsi de suite mbayti numéro 2 bari na man dama doon wax pour mbër yooyu nga xam ni seen niveau àggul fenn fi pour ñu bàyyi leen xel mais su may wax pour ministre des sports bàyyi leen xel su may wax pour CNG bàyyi leen xel parce que dégg naa ministre des génne na benn 47 yóbbu ko CNG CNG jël 47 millions yooyu jël 20 ko ci keesam jël 27 millions séddale pourquoi pas yeneen mbër yi nga xam dañoo jëloon avance ah yooyu mu mu diviser ko par 200 000 200 000 ñaata lay doon kooku presque est-ce que du mat 1000 mbër. day mat 1000 mbër nga jox leen 200000 200000 su boobaa mbëru mbër yi 50000 yi jëloon 50000 avance 50000 boo leen ko delloowee kooku duñ wax dara mais CNG bu jëlee xaalis boobu teye ko moom. Euh, léegi jox quelques promoteurs il fallait que ci contexte boobu ma am man ma waxal mbër yi mais man je suis là pour le CNG je suis pour les promoteurs man dama dama nekk fii pour làmb mais euh, Assane moom c'est mon c'est mon ami c'est mon frère comme tous les autres promoteurs école de Mor Fadam na mu ubbee woon boppam ak pour promoteurs yëpp ñëw. tëgg si seen i ay mbërëm noonu la noonu la kiiyee man li ma doon wax dama ko doon waxal promoteur yi di ko waxal làmb di ko waxal ñëpp. parce que man wax naa leen ko nee naa leen même 27 millions yi ñu promoteur yi sax dama ko xeeb promoteur yi waruñu ko woon laal dañ leen ñamal benn 27 millions jaxase leen seen biir ñenn ñi mer ñenn ñi am ay frustré yu demee noonu fekk ne Pape de Fall rek combat bi mu taxaw rek presque est-ce que duggul ñoom Fallou Ndiaye bu nekk. Euh, bul xam lu mu lu muy lu muy frais lu mu toll te bul fàtte ne Dieye da daan def ay journée yoo xam ni day jël caat sec mu ñëw ñu defal concert ñoom Mayendeb ñëw di tëgg ñii ñii di way xam nga spectacle am Dieye production ci marque boobu lañ ko xam kon ay journée moom est-ce que sax buy def programme est-ce que waru ci dugalaale lool parce que moom loolu la ñu tàmmal ay journée yu neex yoo xam day dem jëli artiste fay ko xam nga euh, Ndiaye production waxi nopp di créer ay galaaf yu def en tant que président école de moo Faram en tant que acteur de la lutte ñun contre ñu benn promoteur au contraire dañuy xeex pour ñu fullaal promoteurs yi def ci ñoom li ñu war a def ci ñoom jox leen jox leen ay moyens pour ñu tëgg làmb à huis clos parce que foofu la làmb toll foofu la sport monde bi yëpp toll parce que mënuñu toog di xaar ñun li ñu doon wax Sénégal lañ ko waxal làmb lañ ko waxal xam nga CNG sax lañ ko waxal école ak écurie lañ ko waxal ñun ñëpp lañ ko waxal quoi.